asalaamualeykum internetu seen média tv yi ñoo ngi leen di jaajëfal te di leen wax yéen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu leen koy fàtte na woon fa woon gars yi di leen koy aimé bu baax a baax a baax final ba jogante nañ ko ba noppi mu nekk final coupe du Sénégal bu 2024 ñi nga xamante ne si nag ñooy waa Mbour Petite Côte ñoom ñoo ca daan A2F mu nekk académie lay féri du foot lu tolloog 1 bi a 0 bii bi ci deuxième mi-temps bi lañ ko dugal ci noonu gars yi ci la mburuwaay yi doonee champion dal di jël coupe du Sénégal bi nga xamante ne si ñoom waa Mbour daaw ñàkkoon nan ko seen digganteeg jaraaf. mi ngi noonu gars yi A2F ñàkk nañu final bi ñoo ngi leen di encouragé di leen wax vous n'avez pas démérité en tout ca régional ba ngeen jógee di xuus di xuus di xuus ba yegg si fii nekkul woon loo xamante ne sii ñu ngi ko doon xaar mais ak seen jàmbarte. def ngeen ko ba ñëw jouer final mbuur bi nga xamante ni si nag euh, moom gañe na ñu ngi leen di félicité voilà ñu ngi leen di féliciter ci ndam lu rëy li nga xamante ne si am nan ko ñoom mbuur Petite Côte mi ngi noonu gàdd nañu coupe di Sénégal gannaaw ban daanee A2F lu tollook un but à zéro. joueur Real Madrid bi nga xamante ne si mooy Tchouaméni moom nag xam nga ni gannaaw ba leen Espagne éliminé ci demi-finale bi moom fii la ñëw ci Sénégal moom nag Tchouaméni nee na. am na ci yum xam Sénégal parce que nee na Crépin Diatta ak Ismaïla Jacob nekkoon ay coéquipier ca Monaco jot naa am lu ñu ko xamal ci réew mi moom nag nee na dem na ca Touba nee na dina dem ca Casamance nee na ba ca mbuur walla ca sali euh, dina fa dem te nee na Sénégal ville bu rafet la Dakar moom actuellement nii ma nga fa. moom nag nee na daal dafa am ay projet pour jeunes joueurs yi fii ci Sénégal nee nañ dinañ ci liggéey gannaaw gi dinañ xool ay investissement yoo xamante ne sii dina ko def fii ci Sénégal parce que moom Tchouaméni ni daal nee dafa bëgg a jàppale yenn jeunes africain yi moom nag ci ñoom fii ci Sénégal ñi nga xamante ne si ñooy supporter Real Madrid yi fii ci Sénégal noo gars yi merengue yi du nitan ah, voilà dem nañ ba gisanteeg Tchouaméni comme ni ngeen ko gisee nii jox ko cadeau voilà cadeau lañ ko jox comme ni ngeen ko gisee xaftaan bi euh, moom la fans yu Real Madrid yi féete fii ci Sénégal jox seen joueur bi muy Tchouaméni mi ngi noonu gars yi Tchouaméni daal fi mu toll nii nee na Sénégal réew mu neex la réew la boo xamante ne sii euh, Crépin ak Jacobs daan nañ ko nettale ay mbir yoo xam am na fii. ki ngeen di gis nii gars yi Cobra la moom nag démb dafa amoon combat foofu ca Santiago Bernabéu moom nag gannaaw la am ndam ci combat bi mu daal di génnee maillot Lionel Messi bii. voilà moom la génnee na ko Messi defee woon moom la noonu la ko defee jël ko euh, tàllal ko woon ko public bi foofu la ko defee nag gars yi ci stade Real Madrid mu nekk Santiago Bernabéu moom Cobra moo ko def mu am nag loo xamante ne si daf koy fàttali mayo bii la woon. Euh, mais boobu gars yi borom maayo bi la woon moom ci boppam mu nekk Pulga bi muy Lionel Messi Habib Diarra club am mu nekk Strasbourg ñoom xam nga ni tàmbali nan pré bu yàgg ba sax ñoom commencé nañ di jongante ay match xarito ay match amicaux tey nag amoon na amical bu ñu doon def seen digganteeg Fenerbahçe moom Habib Diarra comme ni ngeen ko gisee nii moom gaynde Sénégal gi moo ci takkoon brassard capitaine bi mais nag gars yi Fenerbahçe dóor yu méttee méttee méttee métti leen dooree Strasbourg 4 buts à 0 Habib jara nag bi ñu ko gisee mu joué mu nekk loo xamante ne sii euh, nouvelle bu neex la voilà suñ xel da cee dal parce que xam ngeen nii ñu nag Mauritanie dafa amoon gaañu gaañu bu metti woon ba doon sox ba ñu ban joxoon ko sax beeki mu ko doon doxee Habib jara boobu gannaaw ba mu commencé woon di entrene intégré woon groupe bi tey joué na contre Fenerbahçe mu nekk loo xamante ne si lu am solo la pour moom gaynde Sénégal gi muy Habib Diarra attaquant sénégalais bi nga xamante ne si mooy Lamine Correa tem nekk foofu ca championnat bu Lettonie ba moom nag xam ngeen ancien joueur Pikine bi attaquant bu tàng jër la day wane boppam moom nag tey triplé la def ah voilà triplé la dugal loolu moom moo tax fi mu toll nii am na lu toll dix bi ren ci saison bi en toute compétition confondue mu ngi noonu gars yi moom Lamine Correa ma ngay wéy di wane boppam. El Ghazi bi nga xamante ne si dafa amoon problème ak euh, clubam foofu ca Allemagne muy Mayence gannaaw nag bam mu ba mu wanee njàppaleem ñi nga xamante ne sii ñooy Palestine Palestine gars yi xam ngeen Israël da di cong cong yu méttee métti moom nag El Ghazi mu bokk ci ñi nga xamante ne si dan do dañuy jàppale Palestine moom nag gannaaw moom ba mu wanee ni Palestine lay jàppale équipe am muy Mayence dañ koo indil jafe-jafe. gannaaw nag jafe-jafe yooyu sax ba ñoom ñu ni dañuy résilier contrat am moom El Ghazi yi gannaaw ban demee ca yoon gagné na li nga xamante ne si mooy procès bi wala gagné na procès bi léegi ñii nga xamante ne si ñooy Mayence dañuy war a euh, continuer contrat bi nga xamante ne si moom El Ghazi yi am na ko ak ñoom mi ngi noonu gars yi El Ghazi yi am na ndam ci kaw ñi nga xamante ne si ñooy Mayence ñu ngi ciy tàcc bu baax a baax parce que moom deful woon lu dul jàppale ñi nga xamante ne si dañ leen di néewal doole mu nekk waa Palestine champion di Sénégal bi nga xamante ne si mooy Cheikh Gueye yaay technicien bi muy Cheikh Gueye moom moo jëlal Euh, ligue ligue bi wala ligue 1 bi fii ci senegal ñi nga xam ñooy Teungueth FC saison bi nga xamante ne si ca lañ génn gannaaw gi nag gaay yi Cheikh dafa démissionné neneen nag Cheikh gay boobu boo leen moytuwul dana signé ca Bénin ci club bi nga xamante ne si mooy Loto Popo wala Loto Popo FC moo bëgg Cheikh Gueye neneen daal fi mu toll nii waxtaan bi am na te moom Cheikh Gueye boo leen moytuwul dina signe daal di dem toog ci banc équipe boobu nga xamante ne si mooy Loto Popo nekk foofu ca Bénin actuellement gars yi bu dee seetlu ngeen ko ci Europe bi jour yi ku nekkul capitaine bu demee di casse ci arbitre bi arbitre bi daf koy jox carton jaune parce que UEFA dafay tere joueur boo xam nekkul capitaine muy dem di casse wala muy contester ci arbitre bi nga xamante ne si moo tee sifflet bi nan nag gars yi loolu nga xam UEFA tàmbali na ko ci Euro bi boo leen moytuwul UEFA dina jël décision continuer ko ci compétition yi nga xamante ne si daf koy amal club yi di ko jouer ci saison bi nga xamante ne si ci leen jëm mooy lu mel ne ay Ligue des champions. lu mel ni ay Europa League wala Conference League dinañ ci woyal décision boobu nga xamante ne sii moom moo ñel joueur yi ah, kenn amul droit dem ci arbitre bi di kaas kurul capitaine bi. Nico Williams bi nga xamante ne sii Barça daf koo war a président bu Liga bi mu nekk Xavier Tebas moom daal nee na moom gis na ni ñii di Barça. jege nañu pour daal di signé Nico Williams moom président liga bi moom Xavier Tebas moo rotal kàddu yooyu ñoom nag Nico Williams suba ñoom Espagne la ñuy jongante final Euro bi seen digganteeg Angleterre milieu terrain anglais bi nga xamante ne si mooy Declan Rice. moom nee na mënul comprendre lan moo war a tax rek joueur français yi ñuy critiquer ni ko ñuy critiquer Lamine Yamal parce que gars yi Lamine Yamal keroog contre France gis nañ ko mu yor benn masque tortue te mbir moomu gars yi ñëpp xam na ni mu demee ak yenn mbir yoo xam xewoon na ci match bi moom nag Declan Rice dafa jàpp ni euh, Lamine Yamal jarul critiquer parce que xale la. mu ni boo leen fàttalikoo atu Covid ba Lamine Yamal 12 ans kese la amoon te loolu yàggul mu ni kon kooku xale la mais nag xale la boo xamante ni sii daal dafay tiital ay nit dafay tiital ay nit. mu ni parce que Lamine Yamal boo xoolee ay âge gis li muy def ci terrain bi na nga naan vraiment lii lu yéemee yéeme la mu ne nag loolu moom moo tax li muy def ci terrain bi moo tax yenn saa yi ñenn ñi dun bàyyi xel sax ni Lamine Yamal xale bu ndaw a ndaw la. beneen joueur anglais mu nekk Oli Watkins bi nga xamante ne si moo yóbbu Angleterre ci final bi parce que keroog seen diggante ak Pays-Bas moo dugg dugal bit boo xamante ne si bu rëy la moom nag Watkins nee na ñëpp xam nañu talent wu Rodri Rodri joueur de classe mondiale la boo xamante ni si taxawaayam ci milieu terrain bi Espagne bi dafa am solo lool lool lool mu ne nag Rodri boobu ñun bu fekkee ñun Angleterre bëgg nañ suñ taxawaay baax suñ diggante ak Espagne. faaw Rodri ñu am ay pexe fatt ko pour muy bañ di liggéey comme ni nga xamante ne si noonu lay liggéeyee muy bañ di jot bal yi ba pare ñu indil ko jafe-jafe ci milieu bi mu ni parce que loolu buñ ko deful rek mbir mi dina jafe lool lool lool suñu diggante ak Espagne mu ni mbir mi sax moom mënul yomb foo jaar day jafe mais pour jafe-jafe bi wàññeeku faaw Rodri ñu daat koy bloqué ñu daat koy fatt parce que Rodri bu gisee rek mooy mar day MC ek bu Espagne bi day gën a am doole. moom Oli Watkins moo rotal kàddu yooyu Oli Watkins boobu nag gars yi wax na ci Lamine Yamal nee na Lamine Yamal xale la mais talent bu incroyable la am nee na ñëpp gis nañ. li muy def gis nañ ni daal xale la mais teewul day wane boppam gis nga bii yi nga xam dugal na ko maturé yi nga xamante ne si def na ko ba ci Euro bi muy continuer di wane boppam gis ngeen ko ko contre Allemagne lim def contre France mu ñëw di dàbbali continuer di wane boppam nee na Lamine bii daal ku jara bàyyi xel la parce que jour la boo xamante ne si bu am solo la ci équipe Espagne ñu mu nuyoo tamit am na ñeneen ñoo xamante ne si ñoom it ñu jara bàyyi xel lañu ñoom ñëpp doon ay jour nekk foofu ca Espagne. euro bi nag gars yi actuellement meilleur buteur yi ku ci nekk trois buts la amagum muy Henry Kane euh, Dani Olmo Jamal Musiala Cody Gakpo Mikotadze ak Schranz ku ci nekk am nga lu tolloog trois buts ñi nga xamante ne si nag ñoom ñooy UEFA ñoom ñoom pare nañu pour partager leen soulier voilà pour ñoom ñëpp daal ñu nangul leen seen meilleur buteur bu dee ci final bi situation bi décanté wul ba kenn wala ñaar génn bu fekkee loolu amul six joueurs yi yëpp gars yi UEFA pare na pour daat leen di récompenser en tant que meilleur buteur bu euro bu 2024 bi. final bi nga xamante ne sii nag suba lañ koy amal ci guddi mu nekk final Copa America bi nga xam ci diggante Argentine bu Lionel Messi lay war a dox ak Colombie bu James Rodríguez ñoom James nag seen président mu nekk président bu Colombie bi. moom daal moom nee na jël nañ dogal bi sax ah lundi incha allah foofu ci Colombe bi kenn du ko liggéey voilà férié lañ koy jàppe lundi bi parce que daal moom dafa bëgg ñëpp dal di préparer final bi parce que dafa bëgg Colombe bi jël final bi seen diggante ak Argentine loolu moom moo tax moom président bi nee na lundi kenn du ko liggéey maye na ko parce que dafa bëgg gars yi wane seen bopp bu baax a baax ci final boobu. Manchester United sànq maa leen di wax ni leen seen joueur bi nga xamante ne si mooy Sancho ñëwaat na. ba digganteem ak entraîneur bi muy Eric Ten waxtaan nañu amoon nañu réunion waxtaan nañu ba déggoo mais nee nañu donte loolu am na donte waxtaan am na moom Sancho ñi nga xamante ne si ñooy Manchester United seen dogal changé wul ci moom mooy dañ koo bëgga a jaay dañ koo bëgg a jëlee ca club ba. jour portugais bi nga xamante ne si mooy João Neves tem nekk foofu ca Benfica de Lisbonne sànq leen doon wax ni leen moom joueur bii dafa bëgg a dem ca Paris Saint-Germain dafa bëgg a rejoindre club boobu nga xamante ne si moo ne ca capitale bu France ba euh, loolu nag nee nañu nee nañu waa Paris xam nañ ko xam nañ ni João Neves dafa bëgg ñëw mais somme bi nga xamante ne si moom la Benfica de Lisbonne di laaj ci moom moo jéggi dayoo Benfica gars yi ñi ngi fixé prix wu João Neves lu ci cent vingt millions d'euros voilà gars yi lu ci cent vingt millions d'euros la ko ñii di Benfica di jaayee moom João Neves Manchester United bi ma doon wax léegi ñoom nag fi mu toll nii ñoo ngi yëngu bu baax ci mercato bi actuellement nag attaquant bi nga xam ca Brentford la nekk mu nekk Ivan Toney Ivan gars yi nee nañu Manchester United ñoo ngi ci ay mbiram ñoo ngi càmbar ay dossier moom nag attaquant anglais bi muy Ivan Toney digganteem ak Brentford contrat bi dafa war a dem ba deux mille vingt cinq mi ngi noonu gars yi moom Toney ñii di Manchester United dañ kaa bëgg ni tonget dana kaa bëgg a jële foofu ca Brentford. Alexis Sanchez bi nga xamante ne si moom agent libre la gannaaw ba contrat am jeexee foofu ca Inter de Milan moom nag xam ngeen dem na ca Inter ñaari yoon mais booleen leen moytuwul Olympique de Marseille tamit moom Sanchez dina fa dem ñaari yoon parce que nekkoon na fa fa la jogante euh, saison bële fi mu toll nii gannaaw ba mu doonaatee agent libre nee na moog Marseille ñoo ngi déggante parce que Olympique de Marseille dañoo bëgg indiwaat Alexis Sanchez ci seen équipe boobu kon gars yi bu fa demee moom Sanchez daf fay dellu parce que nekkoon na fa jot na fa. Euh, jongante moom ancien joueur bu FC Barcelone boobu mi ngi noonu gars yi seen média TV la wéy leen di abonné di aimé bu leen neexee tamit ngeen di partager.